ngir gëna a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification ñii di waa Alvadev doon nañ amal ab activité jëmale ci sensibilisation Covid 19 ci ndaw ñi. boobule programme nag ñu ngi ci ànd ak seen partenaires yi nga xamante ni ñoo di Terre des Hommes Suisse. naka noonu ñenn ci ñu teewoon ci activité boobee àdduwaat nañ jëmale ci solos activité bi. waaw activité bi euh, mi ngi tudd une campagne de sensibilisation sur les risques et violences encourus par les enfants surtout les filles, du contexte de la COVID-19. Mais également, nous sensibiliser les acteurs des communautés de protection d'enfants sur les mécanismes de référencement et de signalement. tey nous allons pour participer ci activité de sensibilisation pour Alpha Dev bi ñu organisé en collaboration avec TD Hommes suisses. ñëw pour pour ñu waxtaan ci nan nañu aare ak euh, ci période de Covid 19 bi ñu nekk et aussi après période Covid 19. Batay, nous ñoom ñi nga xamante ni sax ñoo ci activité pour nga xamante ni Alpha Dev ko tëral di dox ci ak ak yelleefu ndaw ñi ci Covid 19 Nous nañ bu baax a baax li nga xamante ni rek moo tax activité boobee ñu amal ko. objectif yi ñu fixé daal moom mooy rek jéem a xool naka la ñu mën a gën a def ci suñu taxawaay ba nga xam ni li li nga xam ni moom la euh, partenaire bi bëgg information bi jàlle noonu comme ni mu war a jàlle ci biir ci xale yi ak ci adultes de même loolu mooy suñu objectif daal pour ñu gën a waa bàyyi xel bu baax a baax daal xale yi nga xamante ni yi ñoom dara mun na a commencement bi li ko gënoon a mettil moom dañu ko dañoo

ñëpp xam nañ même au delà de la période de pandémie de Covid chaque fois parce qu'ils sont vulnérables donc risque yooyu ak euh, violence yooyu di dal seen kaw lañ bëgg a ba nit ñi ku ne kat ndaw la dafa néew doole fépp fu nekk am lu koy yot loolu koy yot donc loolu objectif yi bokk na ci bu ñu fi jógee ñoom ñëpp ñu renforcer seen capacité sensibiliser leen ba ñu xam lan mooy euh, risque yi mën a dal xale yan forme de violence mooy dal xale yi fan la leen di dalee ñan ñoo koy def ak bu leen dalee naka lañ koy jëlee en charge naka lañ koy signaler wala ñu référé ko. ñoom ñii nag nga xam ne rek ñoo teewee woon li nga xamante ni moo di activité sensibilisation boobee si ndaw ñi jëmale ci Covid 19 bi. ba ñuy daaneel seen kàddu rafetlu nañ ko loolu waaye it jeexalee ko ay ndénkaane. Hmm, loolu nekk lu am solo loo xam ni dañ koy rafetul en tant que jeune d' abord pour la protection des des des enfants. Hmm. ñoo ngi aussi lancé appel parents yi euh, njaboot yi yëpp. pour ñu bàyyi xel xale yi pour ñu gën leen man aar si joxleen seen seen ak seen yel si jamono Covid 19 aussi. waaw euh, li may sànni waa Sénégal bi ma bokk bëgg ko lool mooy ci wàllu wi ñuy yëngatu ñun mooy nañu gën a farlu ci xale yi. nañu gën a xool xale yi nañu fexe xam xale yi suñuy doom yi suñu jarbaat yi suñu sët yi nan leen di seetlu mais ñuy waxtaan ak ñoom parce que loolu mooy tax ñu mën xool ñoom naka lañ leen di aare donc ci tënk rek xale dal, daal ñun bu ñu sañoon ñu gën leen aar aar bi nag mun na nek ci ñetti fànn bi ci jiitu fagaru manam li ñuy wax prévention beneen bi ci topp mooy bu leen dara dalee ñu xool fan la jaar ba nu mën leen jël en charge beneen bi ci def promotion bi di ko waxtaanee. parce que nek nekk ëllëgub réew loolee doon lu Alpha Dev xam ba saa suy liggéey rek teg gët li nga xamante ni moom moo di ak ak yelleefu ndaw ñi. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu caaro info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification